alors mbokk yi yéen a ngi jàkk Rema Diop une voix mélodieuse elle vient juste de remporter non loolu. alors mesdames et en face avec Rema Diop une voix très belle moom laa jàkkaarloo nii moom nag moo ñëw jël sànq am trophée bi. doo ko meilleure révélation lii laa doon mais jëlaat nga ko. non bàyyi ma jëlee rek c'est c'est vraiment un plaisir pour moi euh, d'avoir été nominée et euh, d'avoir gagné cette catégorie c'est vraiment une fierté. et puis c'est mérité quoi jëloon nga ko raay ëwët ñëwaat ci only ñu jëlaat ko. waaw waaw waaw lii yëpp sénégalais rek vraiment ñoo ñoo ci taxaw ñoo voté ñoo ñoo ñoo envoyé ay messages vraiment c'est un plaisir di leen remercier. pare nañ ci. jeex na jeex na na confirmation bi la ñuy def. récemment aussi gis nañ nga initier lu bees am orchestre waxoon nañ ko ci plateau bi orchestre boo xam ne mi ngi tudd Ngalam ngay yëngatu ci ay affaire de live tu l'as fait da nga ko def mais commencé nga ko di def lan lan la ñu xaar. waaw dañ ko defee rek tàmbali nañ ko ak ay euh, plateau yu bëri yoo xam ne ñu ciy def live et tout donc euh, c'est c'est juste le début ak orchestre Ngalam incha allah ñu ngi avancer incha allah. donc ñu gis ni que yaa ngi def sa formation yaa ngi jàng ah? yaa ngi ba pare yaa ngi woy en même temps di prouver di prouver si woy bi donc ñu bëri ñu doon ne jàng am na jàng boo xam ne mën na ko boole étude yow lan ngay wax ñoom. waaw déjà je dis juste que yombul yombul nga boole jàng étude ak euh, woy surtout ngay def étude en génie civil donc c'est pas évident mais ni ma koy faral di waxee rek c'est une question d'organisation il faut savoir se tracer un tableau de xam priorité xam nécessité en plus ak jàppale parce que la famille elle compte aussi ñoom ñi nekk sama ginnaaw di ma jàppale macha allah ñoom ñoo tax ma agsi fii di wax gars yi que ne c'est possible nañ góorgóorlu rek incha allah. bon je dédie ça à ma maman à ma famille à mon staff et tous les sénégalais parce que lépp ñoom la vraiment. ah ñoo ngi ci de. non nii nii nii nii nii mënuma leen wax dara mais incha allah très bientôt. vraiment si projet si projet effort bi commentaire yi ñu bëri dañuy noté pourquoi gisuñu Rema pourquoi gisuñu Rema. félicitations quest ñoo baax rek euh, ñoo baax de ce lu ñu gis lu baax rek dañ ma ciy bëgg a gis vraiment di wax ne projet effort bi euh, j'étais pas au courant mais di nekk initiative bu ma ma bu ma saluer initiative bu nga xam ne ne naw naa ñu ko organiser aussi je félicite ñi nga xam ne ñoo ci participer parce que ñu tànn nga nekk jigéen représenter euh, li Sénégal taxaw pour taxaw pour xeex tout ce qui est violence faite aux femmes vraiment c'est une initiative que je salue kumba gawlo dundal ba sey may di baawa. na la yàlla sàmm. allahu amin. mais macha allah. sa génération ñu koy def. Eh, un eh, paroles yi doo ko mën a téye intonation yi doo ko mën a téye eh, octave bi ngay yéegee doo ko mën lan mooy secret vraiment. nee naa la damaa woy maringun yaaram baay maringun yaaram baay oo oh, maringun yaaram baay matige ma jojo buri kumba da yande bari ngone aramba ilu wule yalo ya ibaje oyelo yobe ya merci oda mama luma wax mundi du maju eh, rema job sama sët bi danga way mbar way mbëpp way njoli way mbëf re waaw waaw rema job way ngaay déglu mag ñi rek di déglu mag ñi di leen topp et euh, macha daal te amuñu benn amuñu benn euh, kii laay déglu xale la wala kii laay déglu mag la képp ki nga génération bu ci nekk dañ koy déglu que ça soit ñu ma bokkal génération comme ñu ma mag que ça soit des sénégalais comme des gens de l'extérieur donc gëm naa ne c'est à force de forger qu'on devient forgeron dañ ko liggéey rek ci déglu merci beaucoup mais wóy bi moom la inspiré déjà lii c'est la seule chanson mag boo xam ne ne maa ngi koy way nag woyu mag peut mën naa wax ne ne lu ci bari ci mag ñi laa jànge donc mag ñi laay déglu woy bi aussi su ma ko woyee nit ñi dañ may laaj sax yow ban âge nga am c'est vrai que xale laa woy bi judduwuma wala samay mag sax woy bi ñoo ko mag mais li may wax rek dama ko bëgg en plus j'aime les mélodies je suis une amoureuse des mélodies donc woy bu am mélodie rek yàlla boobu ko may la léegi lu may fukki dërëm yor sama nekk sama poos ma may la ko. bu ñibbil sa kër ba ngërëm nga doon ñaan am nga ko. teexe moo de ay kër baay ngaram nga doon ñaan am nga ko abu darda rey bukki wulak may sa biigi kumba faal moo mi ñu booleeg fara xa jikka gañe jabay mam say njaay moo ñëkk a joxe adiya ki leer leeri leer leer Chérif Fall may ñu Cheikh Ibra Fall si France moom